ngeen jëf yéen sunu mbokkeen bu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di ci dellowaat rek kenn ku nekk euh, sa waay comme ni ma koy defee saa su nekk fa yéene doxantu ci gox yi fasantikoo yi ñëw ba Touba seet si Serigne si la ñu fas yéene waxtaan ci xam-xam comme que suñu borom am na lu mu ko dénk ci diggante ñaan ak paj mu ci def résultat saa su nekk moom la fas yéene dalal ñu waxtaan waaye lépp damay bëgg ñu koy wér ci xam ba tax na actualité dinañ ci waxtaan mu di xew-xew jamono actualité comme politique ni ngi réew mi di doxee fi mu ne nii jubat nañ élection législative yi am na lu mu ci gis loolu dinañ ci yaatal waaye combat bi dox ci diggante si Modou Lô it su ngeen bëggee xam kii daanu loolu lu ñuy waxtaane la maak moom ndax am na lu ci gis euh, dinañ waxtaan ci buggaan mi nga xam ne mu ngi ci prison bi ba léegi cheikh bi laata may def leen damay bàyyi nga nuyoog mbokk askan wi bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wajaal kalaami rasidan wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arshida asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen nuyu yéen waa 221 people di nuyu sénégalais yëpp di nuyu ci réew mi ak ñi bitim réew di leen safoo fu ñu toll di leen delloo kàddu gi ba ñëwaat incha allahu taala jërëjëf sëriñ Cheikhouna Sylla ñu ngi lay fay bu baax ginnaaw seen set yooyu tànd ak dal acca comme ni ma ko waxee sama biir intro loolu lañ fas yéene développé yaatal ñuy taatan saa su nekk mën a jëriñu waaye damay bëgg ñu wéer ko ci xam-xam acca euh, mën ñoo waxtaan te jaaruñ ci bunt bi comme ni ma ko waxee saa su nekk mu de seet bi nga xam ne yaa ngi koy def seet nag dafa bëri façon te yaatu yow ban seet nga leen di baaxee del seen ma ni ngay seete waay waaw seet day loo xam ni lu ma taxaw waxtaan la ci ndax ñi koy woote woo dañoo bari lool àdduna foo tourné ñëpp a ngi seet mm-hmm. waaye seet gu wér gu leer goo xam ne ku la xoolal wax la say mbir lu leer nañ ñi loo xam ne mënu ci teggi dërëm mm. yaakaar naa li ma ci li ma ciy def ci réew mi ñu ko ci def bariwut waaw ndax dama cee xam loo xam ni yaakaar naa ma ko jàngee gisuma keneen ko loo ne képp ku ma ci xoolal ci say mbiru bopp mm-hmm. sa tur laay soxla sa tur waajur wu jigéen ak sa tenk loxo nday jor bii foo mën di nekk ci réew bi tam lépp loo xam ne aajo nga ko ci sa bopp mm-hmm. da ko xam damay faral di wax naan dinaa la xoolal ba nga jàpp ne daa am ku la xam ku ñëw ci man wax ma say mbir waaw ndax seet la goo xam ne seet gu wér a wér la mm-hmm. ma jëlee ko ci sama waajur wu góor te moom du gën a kenn seet nag moom képp ko xam ne itteel na la da ngay faral sa loxo bi yónnee bi ko xam ne tur waajur bu jigéen acca kon cheikh bi ñu desandi wéel jàll ci yeneen ponk noob mu di wàllum boole loolu it sëriñ ku ma ci dal su waxee rek da nga naan gongo waaye man de noob jàppewu ma ko lu yomb delsil ma ci ni waaw noob day loo xam ne yombut maa ngi dégg ñu naan noob 24 ñu naan 72 heures ñu naan 3 3 jours loo xam ne ki ko mën dëgg boo ñëwee toog fi nga toog mën na la ko defal nga dem waaw parce que ki nga noobal boo ko xoolee ba xam ne war nga ko mën a noobal ci lu wér ci lu gaaw jarul muy dem wala muy xaar ay 3 jours ak jours fi toog bu toogee wala mu woote man fas yi li ma ciy liggéey ci mbirum noob dama ciy jënd ba sonn waaw lii tey laa ko jënd te fi ne nii balaa suba ji ngoon dana jeex tàkk te lépp noob moo ko tax a jóg bu ñu la maa ci fas fas yoo xam ne képp ku ko fasal moo xam nga ne ci réew mi bu dee yaa ci comme ci man doon bu ma ko defee ba noppi balaa ma 30 minutes fanweeri minutes incha allah taala nga ko def daanaka wala mu jënti la. waaw foo ma ñoo xam ne sax nañ jaar fu ne soo soo dente ay diw xëppante ay ndox mu tàng dem ba sonn mu ñëw ñu ñëw ma boole waat leen waaw day diggante bu yàlla jeexalut boo ci defee dara rek bu dee lu wér day amaat waaw acca kon mu ngoog numéro am damañ koy affiche suufu barre d'écran bi mu leer naañ foo toll da nga koy mën a gis képp koo xam ne da nga koo soxla mu di Serigne si la doo ko woowee rek na jëflante ak yow ba soxol sedd guy acca ñu ñëw ci ñi nga xam ne dañ tukki suñ ko waxee seen xel dina jëm ci wàllum papier rawatina suñu mbokki moodu moodu yeeg faatu faatu yi nga xam ne sonn nañ ci réew ma ndax dañu bëgg di di di yi nga xam ne wala permis de conduire yi nga xam ne dafaa jafe passeport wut ko visa lool bokk na ci li nga xam ne day yombal sa mbir bisimilah ak ni ngi ci ñaane

ay fan yu néew di am kayit moo xam da ngaa bëgg di dem di ñëw wala nga bëgg kayit yoo xam ne da ngay a légal ci biir réew ak lu mu ci mën doon incha allah bu ak jokkoo amee ba ñu xool ko ba xam ne mën nañ liggéey ba déggoo ci kàddu danaa la ko liggéeyal gone waaw ndax li du yëfu gone doon te jëmu ji nag moom xaw naa tuut waaye lu mu xeebu xeebu xeebu li ci biir la ci la ci la ci biir ëpp solo te sama waju dafa maa samp teg mu bërëb boo xam ni maanaam ñaare ñaare ñu bu ñu doon wax ñi amaana ñi ñi ñi gars yi danañ waaw danañ son danañ sonn de parce que man dafa nekk càllal goo xam ne càllal gudd gudd la man ñaan dafa bokk ci sama deret ma xam ci loo xam ni ñu bari nawlonte ma ci ñoom. am na ci ñoo xam ne nag def naa leen nawle ngir xam-xam bi ñu am waaye dama xam ci la lasara moom fii ci réew mi wax dëgg yàlla ñëw ma ci kenn ñëw ma ci kenn. jërëjëf jërëjëf sëriñ naa si la acca dama ñëw ci liñ lay bàkkee mu dee samp place bi boobu dégg naa ngi koy tukkal toj réew mi. waaw samp day loo xam ne moom it bu ñu waxtaanee ba déggoo ñun ñooy ñëw ba ci sa place sampal la ko lii bopp golo la lii bopp golo la boo xam ne bu ñu ci liggéey li ñu ciy liggéey am na cuuraay yu muy àndal yoo bi yaagay soxal loo xam ne ci biir lañ koy dugal bu ñu ko dugalee ci biir ba jël wëñ yi ñuy fas takk ko ci ba mu dëgër incha allah taala foo mën di nekk yor fa place balaa ma 3 mois laal may da yeneen place yoo xam ne ci place boobu lay jógee muy samp goo xam ne ci àdduna maam dégg sa tur dana ñëw ci sa place te da ngay xam ne réew meeg bitim réew kum ci man di doon dana la dégg dana la xam ndax bayra la boo xam ne dañ koy liggéey si tur si tur na bari na commerçant ne ñu ngi ci réew meeg ci a baax waaw xam nañ ko bu ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leeral yooyu nga xam ne am na solo acca ñu desandi wéyal jàll ci beneen ponk cheikh bi ku rab jàpp rab moom lu jóg rek yéen sëriñ si ngeen ne rab rab rab rab doy na waar de. maanaam ñi nga xam ne ñooy seet naan nit ki rab moo li jàpp bariwaan loo xam ne ñu ngi koy jiñ rab rab xam naa ne ko sonn la ku manqué ba la ci réew mi rab ku manqué la parce que bari na ci loo xam ne ay cat laak yu mel noonu ñu bëgg koo jiñ rab waaw fi ne am na koo xam ne mi ngi faju rab fukki at ak juróom te la ko jàpp du rab wala ay war ko an kenn dana bépp sangatu rab bu ñuy sangoo dana ko sangoo te du ci gis benn résultat noonu la amee ci nit ñi nga xamee dañuy sangu ba ci moo xam lu mu ci mën doon fan yëpp duñu gis benn njariñ loolu boo ñëwee dama koy xool waaw parce que dafa am yoon xam ne ci li ñuy jaaree ngir mën a xam loolu nekkul ne nekkul ne seet yëpp koy génne waaw am na koo xam ne mi ngi sango sango rab ba sonn mënta mënta faju mënta wér fekk na la ko jàpp du rab naa nekk liggéey wala mu nekk lu ñu ko def wala mu nekk loo xam ne maanaam ci moom waaw waaye rab moom ñaari damay faral di wax naan ku ku xam naa ku njab la ku njab la daa amul bàjjan réew mi rab waaw kon acca mu ngoog euh, ñu yaatal jàllaat ci beneen ponk wàllum fay coow ndax da ngay gis ñoo xam dañu am problème ba doo moytuwut sax euh, yoon mën na ci am loxo waaye suñ teele ak si ci rek am na noo xam ne mën ngaa def moom ba kenn du ko déggati. waaw coow nag moom coow moom dama ci a fay ci 24 heures heures fi a gaawee yoon kenn du la déggaat ci lu bis balaa bis baa dellu ci ëllëg moo fay coow li kenn du ci waxaat loolu moom suñu borom moom ci dimbalee koo mënti doon bul ñàkk yaakaar coow lu rëy rëy boo ñëwam fay ko loolu moom suñu borom dimbale na ma ci am naa ci ay résultats yu bëree bëree bëree bëree bëri nit nag mën taxaw di wax boppam parce que dañ ne koy koo xam ne yaa ne amaana xamul laay waxal parce que ñi xam xam nañu ba noppi waaw damay koo xam ne képp koo xam ne war nga ci wàllum ñaan ba sonn mën a am résultat jaaral ci man waaw am am na am na yoon woo xam ne ci yoonu xalwatu ak aja dégg naa nga wax ko sa biir wax mu di xalwatu xalwatu nag ah foog naa du sëriñ bu jóg dugg ko de waaye du ko jógeen ñu duggal la ko de xalwatu ci bopp waaw man sama maam bi nga xam ne moo waral lépp daan liggéey maam Thierno Birahim daamal daal daf ko daf ko daan duggloo xalwatu daf ko daan duggloo xalwatu lu bëree bëri waaw ma jëlee ko ci sama way jur bu góor mu jox ma ci yoon woo xam ni yoon wi maam Thierno moo ko joxoon sama maam jox ko ci ndigal ma koy dugg yoon la woo xam ne képp ku ci duggal ci xalwatu mm-hmm. jëru ngay sangu jëru nga takk jëru ngay naan say mbiri bopp lépp kanam li jëm samp-samp bu wér a wér waaw damaa jëlal nag moom ñi nga xam ne ñaari di nga soog a jóg mm-hmm. waaye jëmu joo xam ne yi denc ko ci misaal bañ mm-hmm. nga xam ne yow yorugoo dara boo ñëwee ma dimbali la wax la yoon wax ne buñ jaari yoon xawatu riyaada ñett fan lay doon bu dee ki nga xam ne day soog a jóg mm-hmm. incha allah ma samp ko samp boo xam ni la ma koy génn ci sarax bu ko nangoo génne laaju ko ñaar dërëm mën naa ko liggéeyal ne ci laa koy appal li ma koy appal mu xool ba xam waaw bu dee koo xam ne nag moom dafa jug moom ba ka ba kawe bañ a daanu kooku bu ñëwee weer lañu ko tigi xalwatu bu ko neexee na jël këram wala mu jël fu mu mënti doon ma dem fa dugal xalwatu bu ma ko dugalee ba nopp bu soobee yàlla dana gis njariñ loo ne mosu ko gis ci lenn loolu moom suñu moom dimbali na ma ci allah jërëjëf sëriñ naa sila jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leral yooyu nga xam ne am na solo aca ñu jeexal ci actualité mu di xew-xew jamono fi mu ne nii kenn du la ko nettali dëkk bi fi mu ne nii gars ñuy tànqal ci campagne waaye nag <laughs> na waar élection yi fi mu ne nii li ci des mën naa ne bëreetut gaa ngi campagne opposant yi ñoom Ousmane Sonko fële coow li bëri na de fi mu ne nii yéen sëriñ si lu ngeen gis waaw Ousmane Sonko nag moom suñu borom moo ko samp waaw tax dañuy wax ne in yansurkum Allahu fala ghaliba lakum gis nga bu la yàlla bëggee dimbali kenn mënu laa gàllankoor kenn mënu lor waaye bis bu la yàlla bëggee gàccaal ku jóg ngir dimbali la yéen ànd ci gàcce loolu Ousmane Sonko ko xam ne la ko yàlla def na la àndal ak moom ca loolu bu la neexul yaa sonn na koo xam ne maa ngi jëflanteeg moom ci mbirum ci a ko xam ne la ko am incha allahu taala waaw te it képp ku am sens ci diggante bi naa la dimbali waaw ku jaaru ci man nag moom xamu ci yow dara waaye képp ku yàlla dogal ñu jëflante mën naa jël samay engagement ci parce que man loo xam ne xool naa ko ba xam ni mën naa ko mm-hmm. ka ma ci jëflanteel bu tëddee na nelaw xolam dana sedd la mu bëgg dana ko am waaw ndax réew mi dafa toll foo xam ni ñaari dañoo war a seppi ñi nga xam ne ñoo man teg leen ñëpp gis leen bu ko defee ñu war ba sonn mënu mënuñoo mënuñoo am résultat ci wàllu ñaan mm-hmm. mën a jëflante ak ñooñu ngir mën seen ngir seen xel mën a sedd waaw loolu waaye gis naa ne jàmm daal moo ci waaw coow li dana bari nag moom waaye jàmm ciy mujj waaw te ki nga xam ne moom laa seqal mbirum moom laa ah, ci danaa ko samp samp boo xam ne ñëpp danañ ko xam bu soobee yàlla la waay waaw mut wax waaye buñ ci yeggee bu soobee yàlla moom ci jëmam mooy génn leeral moom mooy génn leeral a baax ñu ngi desante ci politique ba léegi gis nga Bougane moom ci opposant bi la waaye gis nga ko mu ngi ci prison bi mu lay fële Tamba ni ki mercredi incha allah sax war na taxawaat ci baar bi lan nga gis ci moom ah nekk ci prison moom ak fa mu nekk bugaan maanaam bu doon ab batterie daa vide waaw bu doon ab batterie daa vide léegi mu fay loolu lu a la mën naa ne bu doon batterie batterie batterie pour cent buy doxaat benn pas di fay parce que bugaan bi mi ngi dem fu ne waaye amul bi wàcc moom dëgg-dëgg sax amagu ko la woon dañ ko woon def lañ koy defal bu ko mu àndaale mu wéy dafa dem ba loolu weesu ba nga xam ne fi mu woon a toll fi mu amee yi fi fa la fa la fa la rombee mu jugaat bëgg dabuwaat te loolu weesu na moo tax dama li ma koy digal mooy bu génnee ci li mu ne nagal góor gi dem toog bañ bañ a làqatu ci fa xam kenn du ko dégg mu wuti galaaj ba a ñëwaat ci biir réew mi waaw su boobaa dana day fay ji waaw parce que am na ñu doon leen dégg borom yu mag ci réew mi mm-hmm. ci ci mbirum politique ak yu mel noonu déggatoo leen mm-hmm. lu mel noonu mooy ndel te bëgguma mu jaar ci yoon woowu te ñu ngi ci biir réew mi ñu ci biir réew mi mënoo xëy benn bés ba dégg ko tudd seen tur mm-hmm. loolu nag laa mu dal ko sëriñ Cheikh Euh, combat bi dox ci diggante Siteu ak Modou mooy daan Siteu mooy daan kii moo gën a jekku kii jekkuwul yow loo gis sëriñ nga de. bi nag yàgg naa ci wax waaw ndax day loo xam ne suñu bopp moomu dimbali dafa ma ciy liggéeyal moo tax ma ci sori dafa am ku ma ciy ku liggéey waaye li wér te waru mooy mooy dana gis loo xam ne da ngeen ko foogee fenn bu soobee yàlla. loo xam ni. day maanaam day leen jaaxal yéen ñëpp. du lu jëriñ. dana jaaxal sénégalais yëpp ndax day loo xam ni amaana man nañ ko bu ñu foogee waaw mën nañ ko bu ñu foogee. parce que ñu bari dañuy jël benn mbër jox ko favori. benn mbër jox ko favori. waaw ne mooy. jox foofu mooy daan wala moo gën a nangam moo gën a kii moo gën a kii. waaye liberté woowu am na ci mbër moo xam ne mi boo xam ni. sembi ko yombut. foofu nag laa mën a yem. kuréel bi euh, mën na koo perte bi yoon wala. yàlla baax na. yàlla baax na loolu bëgg mu digg sori waaye maa ngi ciy liggéey koo xam ne daal bu soob yàlla la mu bëgg ko am moom te sembi ko du yomb waaw ko du yëpp dana leen daaneel bu soob yàlla waaw na leen daal xanaa kooku mut loola ba waaw nañ dem rek nañ doxal tuuti ba a jege ba gën a jege làmb ji mhm. danaa génn leer rek lu rëy rëy loo xam ne ñëpp dañ xam ci saraatan la jaay ci bi ne daan su boobaa dana fekk li liggéey lépp mat waaye jamono jii moom maa liggéey boo xam ne sañu ma tudd benn tur di tooñ waaw waaye bu ma ci noppee lépp dana leer waa di ñaanal ndaw ñi gudd fan ak wér di leen ñaax ci ñu wuti kaaraange ndax jamono ji moo toll foo xam ne boo amul kaaraange loo samp samp mayees na la sempi man na suñu borom moo dogal koo mënti doon boo ñëwee mhm. li may digal sama bopp laa lay digal waaw muy fexeel ba aaru mhm. ba kenn du mën ceew leen ndax jamono ji daa yàqu da ngay ànd ak nit sax xaw ko war a mu teg la bët mhm. waaw da nga ànd ak nit suñu borom dogal wërsëg gi tolloowuñu waaye du ko xamee noonu ndax wa min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha boo maanaam suñu borom mooy mooy jël ab jaam def ci moom wërsëg boo xam defu ko ci kenn loolu nag boo ko maanaam ñi lay jegee bu leen dugg te bu leen duggee mën nañu def ay pexe ngir bëgg laa daa bëgg laa faagagal moo tax kum ci mën doon boo xasee ba commencé mbir commencé leen nga teg ci yooyu buntu àdduna wutil kaaraange lu wér wér ba nga dem fenn bu ko defee dana baax waaleykum salaam wa